auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa sallama tasliman uh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu di ziyaar mbokk yi teew ci barab di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi eh, kilifa yu tedd yi ñu fi dajeel eh, di ci jiital imaam Bousso nga xam ni yàlla def na moo féete ci kër sëñ Touba gi nekk Aulnay di ko sant bu baax ci teewaayam di ko di jaarale eh, teg nuyoo yooyu ak ziar yooyu mu jottali ko bépp kilifa boo xam ne teew na ci jataay bi di ñaan suñu boroom mu defal leen tawféex dëgëral seen taxawaay ba lépp lu ñu yéene liggéey ci lislaam ak ci yoonu Serigne Touba ñu mën koo àggale niñ ko bëggee di nuyu ba tey di ziar euh, daayira bi nga xam ni moral bu ñu yaan euh, ginnaaw yàlla ci seen pësteef ci la màggal gi mën a amee fii euh, nga xam ne buñ ci tuddee rek sëñ Abdou Aziz Guèye ak sëñ Bamba Thiam ak ñëpp képp koo xam ni seqal nañ ko liggéey bi rek mu doy kon ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci seen pësteef di leen ñaanal ñoom it euh, lépp luñ ci yéene rek suñu borom defal leen ko ci barke Cheikh Mamadou Lamine mi tax ñu def bis bi euh, xeewal yooyu mu tasaare ko ci mboolem taalibe yi ñu fi teew ak ñu fi teewul ak mbooleem jullit ak fuñ ñu mën a nekk euh, di nuyu tamit ci ziar suñu rakk yi ñu fi àndal muy sëñ Abdou Latif sëñ Jéeli sëñ Modou Lamine Baara ak suñu mbokk yi fi nekk ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare xam naa li ñuy dolli ci waxtaan wi mel na ni euh, du xaw a bari ndax euh, mel na ni suñu rakk ji ñu fi jiitu muy euh, Cheikh Abdoul Xaadir muy sëñ Cheikh Sidi Mokhtar wax na dëgg-dëgg li nga xam ni mooy mooy solos bis bi ndax bis moom kuñ ko tuddee dafa mel ni li gën a farata mooy ñu fàttali kooku mooy kan ak yan taxawaay la amoon ba yàlla defal ko lii mu ko defal ba bu fi jógee sax lu mat téeméeri at walla lu ko lu ko jege wala lu ko lu ko ëpp ñu koy fàttaliku te mu nekkoon feek eh, ñàkkul ay doomi aadama yu bari yoo xam ni eh, biñ fi jógee la yàlla def ñu fàtte leen kon li ko may ñu koy fàttaliku ba tey eh, loolu dafa jar waxtaane te yaakaar naa ni asalaamaaleykum wa rahmatullah kon xam naa ñu fas yéene àggale euh, li ñu tàmbali euh, di euh, nuyoo di di gear suñu kilifa gi fii yàlla def mu teew fii muy Cheikh Mamadou Xaban ibnu Cheikh Mamadou Fadl ñuy sant bu baax a baax ci jëmmal gi mu jëmmal jataay bi te jàpp naa ni bu ñu fàttalikoo li fi sëñ li wax léegi muy diggante cheikh Mamadou Fadal ak cheikh du Lamine kon defe naa ne lii lu ko gën a jaadu wala ko gën a rafet amul kon ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal taxawaay bii mu am fii ci e, Paris ci France ci lislaam bi suñu borom gën ko cee dëgëral mu yàgg ñoo jiite e, kon xam naa ñu fas yéene e, tënk rek ay xeeti xam naa sax commentaire lañ koy tuddee ci li fi sëñ jili jot a waxte muy lu mat sëkk euh, muy fàttali gi mu doon fàttali ji koy Cheikh Maodo Lamine Baara ak li ko yàlla defal ba ñu koy fàttaliku ay at yu baree bari ginnaaw bi mu làqu ci suñuy bët euh, euh, loolu nag bokk na ci tawféex gi nga xam ne yàlla defal na ko ko te xam naa ñun foofu la ñuy jëmale suñu kàddu di sof ci li waxoon mooy njaboot goo xam ni yàlla defal na leen tawféex goo xam ni eh, moo ñu may ku mel ni Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te may ko wér eh, toog toogaayu Serigne Touba ndax eh, ci wàllu seetlu rek dafa mel ni tax toogaayam bii mu toog te murid yëpp di ci sant yàlla di ko ñaanal mu yàgg fi ñun dañoo jàpp ni bokk na ci xéewal yooyu suñu borom defaloon Serigne Baara muy feeñ ci jëmm Cheikh Sidi Mokhtar. kon ñun ñàkkul foofu la ñuy xaw a jëmale tuuti suñu kàddu rek sof ko ci li nga xam ne seen jiir yi leeral na ko te muy lu mat sëkk euh, ngir euh, gën a gis euh, njariñul wala tolluwaayu kii ñu fi Serigne Touba bàyyil muy Cheikh seen Mokhtar dafa mel ni da ngay war a jàngat li ko jiitu wala li nga xam ni moo lay gën a mën a leeral njariñul taxawaay bi ndax yàlla dafa def fekkee da ngay gëstu li ñuy wax perspective historique dafay baax ci liñ naan analyse kon ngir ñu gis taxawaay bi fi sëriñ bi taxawee te murid yépp di ci sant yàlla eh, ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg nuñ ko war a déggee faaw ñu dellu ci ginnaaw xool ñu ko fi jiitu woon ñoom yan taxawaay lañu amoon ak taxawaay yooyu lan moo ko sabab eh, sëriñ Touba mi nga xam ni moo waral lépp te lépp ci moom la tàmbalee ci lépp ci moom lay dellu euh, bi muy sanc yoon wi am na ay wax yu mu ci wax yoo xam ni euh, jàpp nañ ni ñun moo war a nekk li ñu naan les fondements du mouridisme euh, te loolu bari na waaye mënees na cee jàpp rek li fi sëñ ji li waxoon sànq muy bayit boobu nga xam ne murid yëpp xam nañ ko mooy lil Moustapha nawaytumaa yu jadditu sunnatahu xarra wa indi ahmadu ci tënk Euh, ni ñu koy déggee ndax sëriñ bi rek a xam li jublu ci ay waxam euh, sama yéene mooy yeesal yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon dafa mel ni ci baatu yeesal ci la sëriñ Touba taxawalee lim taxaw te yeesal googu jëmul lenn ci dudul lislaam kon liñ tuddee yoonu murit lu lenn lu lislaam koo xam ni sëriñ Touba da ko yeesal ci anam koo xam ni gisee fu ko woon li ko jiitu kon ba yàlla defal ko ci li ko ci defal kon yeesal googu jàpp nañ ni ci la lépp tege ndax boo seetloo da nga gis ni sëriñ bi ci boppam bi mu ko waxee ba noppi da koo jëfee ci anam yoo xam ni anam yu jéggi dayo yu doy waar xam naa dinañ ci lim aslëf rek ngir leeral moom nan la yeesalee dëgg-dëgg lislaam ci ay ay fànn yu ñu mën a teg bët bi mu fi jógee tamit mu mel ni dafa dafay bàyyi ñoo xam ne dañoo war a àggale wala boog war a wéyal wala sof ci li nga xam ne sos na ko ba noppi mu yeesal googu xam naa looloo waral mu jëm ci àgg ba ci zurriyatan tayyibatan tujaddidu ndax janabil te tajtahidu suñu borom maa ngi lay ñaan ay dono wala ay kuutaay yoo xam ni yeesal gi nga xam ne tàmbali naa ko ba def ci lu ci kenn deful mu may ma ñoo xam ne dañ koy wéyal ba saa di taxaw ndax Sëriñ Tuubaa li ko yàlla may ak jëfam day war a warta taxaw ba saa di taxaw looloo tax yàlla may ko xalifaam yi mu ko may nga xam ne njabootam googu li Serigne Touba nekkoon di yeesal boo seetloo da nga gis ñoom it ci loolu lañ nekkoon di yeesal ñoom it dinaa ci leeral ak lëf ku nekk ci ñoom fànn yoo xam ne gis nañ ci ne buñ ko seetloo ñoom def nañ ci ay yeesal yoo xam ne moo tax ba yoon wi àgg fii moo tax ba diine ji euh, àgg fii loolu nag buñ ñu ko leeralee ci lañ gën a mën déggee kon Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moom dafa jaar ci yoon woowu ñu ko fi ñu tedd ñoo ñu jiitoon jaar moom it yeesalam ci ban fànn la jëm ndax loolu moo ñuy mañ ñun ñi nga xam ne ñoo am tawféexu jamononteeg moom war a xam fu ñu war a teg suñu tànk ngir jàpp ci yeesal boobu ndax kilifa yooyu ñu fi tudd mu dalee ci sëriñ bu mag bi ak ci ñu ko fi wutu ku ci nekk ba ngay yeesal danga ko ànd ak ay asxaaba yoo xam ni ay saaba yoo xam ni mooy mbokk mooy taalibe yi ak seex si ñoo la jàppale ci liggéey boobu kon ñun ñi it loolu danañu may ñu xam fan la ñu war a jëmale suñuy jëf ba dugg ci tawféexu sëriñ Tuubaa nga xam ne yàlla defal na ko ko kon euh, fi ñuy tàmbalee mooy leeral yeesal ci mooy lan ak lan mooy njariñam euh, ngir dégg ko dañu ci faral di ñun joxe ay misaal muy tajdid muy yeesal rénovation euh, boo xam ni dina ñàkkul tax ñu mën koo dégg ci anam yu jàppandi islaam dafa mel ni ak garab garab goo xam ni boo ko waxee kon dafa am ay reen am ay bànqaas muy ay branche garab nag ngir mu dund dafa mel ni reen yi moom kenn du ko laal kenn du ko dagg dañ koy suuxat mu gën a gën a gën a gën a gën a bejji gën a gën gën a màgg waaye mu mel ni nag branche yi muy bànqaas yi léeg-léeg dafay jar sax ñu dagg ko gën koo dëppaleeg saison yi ndax loolu mooy tax ba ñàkkul sax garab gi gën a gën a meññ gën a gën a gën a jëm ca kaw Euh, loolu li muy tekki mooy lislaam dafa am ay racines muy ay principes yoo xam ni kenn du ko laal maanaam li nga xam ni moom la yonte saasam indi mu nekk ci alxuraan ak sunna muy principe yooyu maanaam du soppeeku ci espace du soppeeku ci temps maanaam ci gàttal rek iman islam ihsan du ñu dem ba jëmi jamono rek ñu ne dañuy yeesal diine rawatina ci ñi ñuy tuddee réformistes yi nga xam dañuy àgg sax ba ne jëmi alxuraan sax dañu ko war a xoolaat kon loolu kenn du ko laal lu mel ni jiital alaaxira ci àdduna wala sàkku xam-xam yooyu du soppeeku euh, jëf lu baax bàyyi lu bon loolu du soppeeku kon am na principe yoo xam ne ci islam li fekk saa di taxaw rek du soppeeku loolu moom ay constante lay doon mooy racine garab gi waaye ngir dundal principe yooyu muy racine yooyu dafa mel dafa am ay branche yoo xam ni moom ñoo ci ci la mbir ci mbir mi di jaar ngir loolu gën a mën a dund euh, masalan buñ nee sàkku xam-xam day day principe ci l'islam du soppeeku ni ñuy sàkkoo xam-xam mën naa soppeeku dans l'espace et dans le temps ndax euh, jamono ñu nekk li leen yàlla may barab bu nekk ni ñuy déggee ak li leen yàlla may kon loolu day dëppoog dañ koy contextualiser dañ koy rénover kon bu ñuy wax tajdid yeesal ci méthode yi la ñuy wax méthode yi kon mooy branche yi nga xam ni euh, dafa mel ni sax boo xoolee fi Europe da nga koy gis ci garab yi bu saison yi soppi dañuy dagg garab yi di dagg yi ngir garab gi gën a mën a meññ kon Euh, adaptation boobu du sax loo xam dañ koy def nii rek ngir rafetal waaye dafa dafa bokk ci lii tax garab gi mën a dund kon yeesal mënta ñàkk ci diine looloo waral bi fi yonent yi jógee aleyhim salaam euh, nit ñu baax ñi ñëw saa su nekk ni ko xadis boo waxee téeméeri at yu nekk muy benn indication rek am ñu ñëw di yeesalaat diine ji di ko di ko dëppaleeg jamono ji li mu laaj ngir principe yi gën a mën a dëgër euh, sëriñ tubaa boo seetloo dafa mel ni loolu la def sëñ bi euh, mbiram lu doy waar la waaye mën nañ cee rek jël ñetti euh, fànn yoo xam ni yeesal kooku day feeñ masalan euh, nañ jël ci wàllu xam-xam sàkku xam-xam ñu wane ci ni ci sëñ bi yeesale jël ci wàllu résistance muy daanaka jihaat bu dee ci jamono yooyu jël tamit ci wàllu yar éducation tarbiya bari na ci fànn yi waaye yooyu rek jàpp naa dina doy ci ñu xam li sëriñ bi am tegtal bokk ci li sëriñ bi liggéey ci wàllu xam-xam sëriñ bi bi mu ñëwee fekkoon na ay daara yu bari ci réew mi ndax islaam na ngeen ko xamee yàgg na ci Sénégal ndax ëpp na daanaka junniy at bi mu duggee Sénégal ndax dafa am na sax ñu naan onzième siècle ci la ci la fa dugg nga xam ni kon islaam yàgg na ci Sénégal ay daara yàgg na fay am njàng yàgg na fay am xam-xam njàng alxuraan am ni boo xoolee histoire am sax ay maamam maaram ni mu ràññeekoo ci fànn yooyu ba ci Maam Mor ni nga xam ne ñëpp xam nañ ni li naan somité intellectuelle ci jamonoom ci la bokkoon kon sëriñ bi inventé wul daara dafay fekk daara ñuy jàngale ci ay téere yu bari ay risaala ak yu baree bari umul barahin kon téere yi bari woon na waaye bi sëñ bi ñëwee mu gis ni moom jamonoom laaj na ñu ñu ñu yeesal instrument yi ñuy jàngee muy méthode yooyu moo waral ngeen ko xamee ci njëlbeenam rawatina mu jëloon téere yu bari yi nga xam ne amoon na ci jamonoom muy des ouvrages de référence mu taalifaat leen nga xam ne ay wesar lañu woon ay prose mu versifier leen lim ci jublu wax na ko mooy yombalal njàng nga xam ni jamonoom moom boo ñàkkul mokkal moo xewoon ak euh, yu baree bari nit ñi tàmbalee woon ginnaaw téere yu mag yi nga xam ni dañ leen taalifoon ci yeneen jamono yeneen temps taalif leen ci yeneen espace rawatina ci euh, réewu arab yi mu indiwaat leen ci jamonoom gën leen a ba dugal ci ay xalaatam ak yu baree bari ba gis nañ loolu ni mu ko may mu yeesal xam-xam nga xam ne yeesal boobu mi ngi ak mi ngi continuer ba léegi boo gisee ku mel ni sëñ Abdourahmane mu sëñ Abdou Khoudoss yàlla nañ suñu borom yàggal te may ak yowal mu jël def ko ci ay band ak i CD day dugg ci yeesal googu ndax moom tamit dem nekk na jamono yoo xam ne ñàkkul mokkal noonu rek eh, doyatul ndax am na ay jumtukaay yu bees yoo xam ne amul woon jamonoy sëriñ bi mu def ko ci eh, ak tamit ñu bari ci yoon wi tamit di jël ci ay site internet li nga xam ne yemoon na ci band yi wala ci téere yi di ko ci def rek ngir yeesal njàngin wi ak xam sëriñ bi ak xam diine euh, beneen fànn bi sëriñ bi yeesal muy wàllu yar ndax système éducatif bi li ci ëpp li ñu xamoon boog jamono li jiitu sëriñ bi mooy da ngay ñëw cib sëriñ mu jàngal la li mu la war a jàngal bàyyi la nga dem sëriñ bi moom boo xoolee bi fi bàyyam nekkee ci loolu la nekkoon waaye bi mu amee euh, euh, tawféexu mën a taxawal système boppam li mu woote mooy ni ngeen ko xamee daa woo dong yi ne képp koo xam ne njàngum kese muy enseignement livresque wala théorique moo la tax a jóg mooy ni ñu daan jàngalee maanaam daara yi bëri na ci réew mi mën ngaa dem waaye képp koo xam ne nag da ngay sàkku ngërëmal suñu boroom ci ànd ak sëriñ bu lay tarbiya di la di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ñëwal ñu dem kon dafa mel ni dañu dafa réformer système éducatif bi yamatul rek ci jàngi kese waaye xilma wal xamal lay boole muy enseignement théorique ak application pratique kon sëñ bi yeesal na ci gis nañ yàlla defal nga xam ne sëriñ bi formé na ay xeetu nit yoo xam ni ci ci ci moom lañ ko tàmbalee gis nga xam ne ay Maam Thierno ay Cheikh Ibra Fall ñooñu sëriñ bi ci système am muy defar nit ci la ci la defaree lool kon système boobu mooy wéy ba mel ni Cheikh Saliou Mbacke yàlla ko borom euh, fayal yokk leeram gis ngeen li mu def koom ak ñeneen ñu bari ñoo xam ni ñu ngi góorgóorlu ci di di defar nit te lool di lu central ci euh, yeesalu sëriñ bi beneen domaine bi nga xam ni ci laay jeexalee ci diggante boobu ci yeesu sëriñ mooy ci côté résistance ndax li euh, ngeen ko xamee euh, bi fi colonialisme amee colonisation mag ñi ñu bari dañ daan xeex ñi di jël ngànnaay ak fànn yu baree bari waaye sëriñ bi bokk na ci ñi nga xam ni dafa théoriser dañuy wax résistance pacifique noonu lañ koy tuddee waaye muy daanaka résistance culturelle nga xam ni moom jihaad gis nga inni ujaahidu bil hulumi bi tuxaa habdan xadiman wal muhaymin shahidu sama jihaad maa ngi koy defee ci xam-xam ak ragal yàlla muy lu xóota xóot loo xam ne xam naa waxtu yi du ñu may ñu dugg ci waaye muy loo xam ni dañ ko war a gën a jàngataat gën ci inspiré rawatina ci jamono joo xam ni contexte bi changé na waaye mu mel ni li Serigne baa waxoon ci fànn boobu dafa valable ba tey muy buñ tolloo ci jamono joo xam ne wala réew moo xam ne muy France bis bu nekk ci média yi ngay dégg radicalisation di dégg ay ay ay xeeti taxawaay ak i doxin yuy yuy gàkkal deru l'islam kon principe yooyu sëriñ bi indi gënoon dundalaat yeesal ci wàllu ci jihaad bil hulum way tuqaa mooy le jihaad culturel dafa mel ni kon dafa jotaat sax ci ñun ñu gën koo fàttali gën koo dundalaat ba adapté ko ci monde bi nga xam ni amee dafay wut solution te ñu jàpp ni Serigne Touba bokk na ci solution yi nga xam ni mën naa saafara yooyu kon Serigne bi moom kon yeesal na dañ cee joxe ay tegtal waaye mënoon na ko gën a mënees na ko gën a xóotal euh, kon daal yeesal ci gàttal rek mooy fexe ba principe yi ñu dundalaat ko ci jamono ji dëppale ko ba jullit ñi ni ñu ci waree dund ñu ko waree ñu ci waree ñu ko waree dund ñu dundee ko noonu ba mën a defaru ba mën a am li ñuy wax fawzayni sax Sëñ Tuubaa lenn li ko fi indi du lenn du fawzayni muy tax ñaari kër yi muy àdduna ak boo seetee sax téere bi nga xam ni moom la fondement yi ci waxin dëkkub Touba nga xam ne war a nekk laboratoire système boobu Matlabul Fawzayni la ko tuddee kon dafa mel ni Sëñ Tuubaa li ko taxoon a jóg mooy fexe ba jullit ñi fexe ba mbindeef yi texe àdduna texe alaaxira bi mu fi jógee mu mel ni dafa li ma ko waxee woon sànq dafa euh, bi mu fi jógee ci ci suñuy làqu ci suñuy bët ndax sëriñ bi du fi jógee dafay bàyyi ñoo xam ne ñoom la sas euh, ci déggin ñu àggale liggéey boobu kon loolu muy xalifaam yu tedd yi nga xam ni ak képp koo xam ne rek euh, kilifa nga wala ngay taalibe moo xam ne yaa ngi dox ci loolu sëriñ bi rëddoon kon loolu ñu seetlu ne kon yeesal googu dafay dafay dox Euh, ñoom nag kon niñ ko yeesalee boo xoolee dañu koy yeesal lañ koy def ci seen i wax ak seen i jëf boo leen xoolee xalifa yi sëñ Tuubaa yi ak ñi fi wut sëriñ bi dañuy góorgóorlu ci seen i wax ak seen jëf saa su ne ñu ñuy yeesal li fi li ñu fi bàyyee euh, loolu nag sëriñ bi moo ko junjoon ni ma ko waxee sànq ndax bi mu ne zuriyatan tayyibatan tujaddidu ndax jana biin wasawa tajtahidu zuriyatan mën nañ ko tekkee sët wala héritier waaye nag moo nes na ko tekkee de façon plus large koo xam ne rek taxaw ci pas-pasu yeesal li fi Serigne Touba bàyyi nekk ci mission boobu rek da ngay xaw a dugg ci zuriyatan boobu ndax loolu da ngay nekk sëtu ruux mën ngaa am doo nekk sëtu deret waaye da ngay nekk sëtu sëtu ruux kon da ngay dugg foofu euh, ba tey euh, waxam la naa zuriyatan tuddimu alhamala saalih yaa xadimu kon loolu it mel ni rek sëriñ bi day doon na junj ni kon am nañu war a àggale liggéey bi ndax kuy ñaan ay sët yoo xam ne dañuy yeesal yoonu yonte sallallahu alayhi wasallam kon yow da nga fa mel ne ngaa ne kon am nañu war a àggale sama liggéey te loolu dafa dugg alxuraan alxuraan boo seetee baatu zurriya saa yu ñëwee rek ci yonent yi mooy ñoo xam ne dañuy doon yonent yi ci seeni ci seeni euh, mission euh, loolu nag euh, boo ko seetloo tamit foofu diggante boobu ci bu sëriñ bi di jëfandikoo baatu zurriya dafa mel ni saa su ne da ciy def ay conditionnalité yu tax ba héritier yooyu mën a àggale mission bi ndax boo xoolee zurriyatan tayyibatan mooy ñoo xam dañuy sell ak tay tay alhamdulilah zurriyatan tayyibatan tujariyu ndax jërëmel wasa tajtahidu mooy ñoo xam ne aussi dañuy farlu donc dañuy sell ba pare doon ñu farlu kon dafa mel ni bi sëriñ bi di junj ñu ko war a wuutu ngir ngir àggale liggéey bi def na ci condition mooy faw ñu nekk ñoo xam ne dañuy sell mooy dañuy am xam-xam bu wér di ko jëfe mooy di jëfe ndigal li suñu warom yi bàyyi tere yi ba noppi farlu ci ci ci loolu kon dafa mel ni sëñ Touba joxe ne condition wax la naa zuriyatan tuddimu alhamdulilah saalih yaa xadimu loolu it leer na mooy suñu warom may ma ay sët yoo xam ni wala ay wu ay kuutaay yoo xam ni dañuy sax ci jëf ju baax alhamala saalihan kon ñi mën a àggale mission boobu faaw ñu dajale condition yooyu Serigne Touba junj ci bayit yi euh, kon condition yi li ci jiitu kon mooy ay jikko kon jikko yi dafa mel ni ci la ci la ci la ñuy mën a condition la ngir ñu mën a yeesal jikko yi bu fa nekkul yeesal gi du mën a am kon dafa mel ni man noonu laa ci loolu laa ci dégg euh, ci gàttal rek ñu xool xalifa yooyu ku fi wuute ku ci nekk ci ay anam yoo xam gis nañ ni yow maanaam yeesal nga Euh, bu loolu riir rek gën a dégg ni ma ko waxee ci njëlbeen gi sëñ Sidi Muxtaar mi taxawaayam fan lañ koy mën a dañ koy mën a déggee euh, xalifa yooyu yàlla nañ leen yàlla fayal ndax lu ñu am tey ginnaaw yàlla ñoom la dangay seetlu ne ku ci nekk yàlla mayoon na la tawféexu sa jamono la mu laaj mooy contextualisation bi da nga koy xam xamin ko doy waar koo xam ni sax boo koy analyser nii rek dalay jaaxal ci ñoom maanaam dégg gi ñuy dégg seen jamono ba mën a jël principe yi Serigne Touba bàyyi woon dëppale kook seen jamono te du ñu wàcc yoon wi lool loolu lu doy waar la ci yu Serigne Touba bàyyi nga xam ne loolu da ngay nga xam ne tawfeexu Serigne bi la ñu joxe ci rek ay tegtal yoo xam ni dina tax mbir mi gën a leer ci ku nekk ci ñoom nga xam ni eh, doomi Serigne Touba ñoom ñëpp wala sax képp ku ñuy tudd tudd Serigne bi wala xale wala cheikh yi ay ñu tudd ci rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkkul ñoo tooge woon xilaafa gi eh, bu ñu jëlee ku mel ni eh, Cheikh Maodo Moustapha nga xam ne moo ko fu njëkk a wuutu moom jamono ji mu ñëw jamono ju doy waar ndax moom defi bi mu njëkkoon a am mooy li ñuy wax remplacer sëriñ bi ci waxin te loolu di lu lu jafe ndax moo di àggoon nañ ci sëriñ bi foo xam ni ngir gis keneen ku dul sëriñ bi jafe woon leen lool ba am na ci xisa yu baree bari yoo xam ne xam naa jaruñu ci dugg ci ñàkk dégg ni am na ku ko war a wuutu nga xam ne yu jafe la euh, bi bi mu ñëwee mu mu mu yeesal euh, yeesal gi saa su ne li may seetlu ci sama analyse mooy dafay dañuy def jëf yoo xam ne day dëppoo bi ba pare ñu am ay jikko yu leen may ñu mën a jëfee loolu ndax dafa mel bu ñu amoon jikko yi duñ ko mën a def wante lu am solo euh, Cheikh Moustapha bëri nay jikko ndax principe bi Serigne Touba waxoon lépp da nga ko ci gis muy yooyu ma doon wax sànq jaamu yàlla ci tënk rek ibaada wal xidma ndax mooy moom laa tuddee doctrine euh, Serigne bi ndax Serigne Touba Abdoulaye wa Xaadimu Rasuulihi la mooy jaamu yàlla ak maanaam euh, liggéeyal Serigne bi ñoom ñëpp da ngay gis ne dañ cee maase kon loolu principe bi du soppeeku waaye ngir contexte am dafa mel ni li mu gënoon laaj bokk na ci nite nite mooy maanaam xam li xew ba pare jëfee ci ci ci nu dëppook jamono jooju muy ak nite Cheikh Moustapha bokk na ci jikko yi ñu ko gën a ràññee yàpp naa ne mooy nite xam lu ci nekk dam ca war a doxee nga xam ne lépp du ko teg rek ci baatin noonu waaye day xool ni kat jumaa ji laaj na ñu am ñu indi materiel bi Touba mu ne kon nañ defar raay boo xam day jóge maanaam njaareem ñëw tuubaa ak nam ca jëfee tubaab yeeg lu baree bari ak ñi ko xam ni dañ ko waroon ginnaaw ni mu fexee ba euh, ku ci nekk fexe na ba jëflante yow anam gu rafetal goo xam ni dara yàquwul ci gàttal euh, waaye Cheikh Moustapha euh, lu am solo am na ci benn xisa bu ma ci leeral ngir wane capacité d'adaptation bu may wax rénovation boobu benn xisa bu koy wane sëriñ bi en 1925 fekk jotoon na autorisation li ñuy wax daf jumaay Touba ndax sëriñ bi mu jug dundam tubaab yi may ñu ko woon mu génn njaareem dem fenn waaye jox nañ ko autorisation mu def jumaay Touba nga xam ne li ko gënoon a ñor projet yi mu fi bàyyi ci la bokk euh, mu joxe ci ndigal taalibe yi tàmbale cee liggéey nga xam ni kooku ngeen dégg administrateur tàllari boobu ci ñu joxoon liggéey bi la bokk ba mu def sax yu doy waar 1927 euh, sëriñ bi làqu ci suñu bët Cheikh Moustapha war a àggale liggéey bi ci condition yi ma waxee yi ma ko waxee sànq euh, bi mu ñëwee nettali nañ ci mag ñi ne bi mu ñëwee ndax sëriñ bi mu fi génnee dañ koo denc ci mbépp gi ni foofu mu waxoon ne fa nañ ko fa def waaye ñu bari ci murid yi xamuñu ni jumaay tuubaa gi sañ Touba tàmbale woon nekkul ci jumaay tuubaa gii ñu xam mu ngi nekk ci fi ñuy wax jullikaayu it bi foofu la foofu lañ tàmbale woon liggéey bi ñu bëri xamuñu lool. bi ñu tàmbalee liggéey bi ci lañ ci ay nettali ba tey sëñ Mounou Moussa ñëw ak sëñ Mbacke Bousso ñuy nattaat yu bari bari bi ñu demee bay kii la ñu ne ci liñ nettali ba tey ni Cheikh Moustapha ci la seetlu ni jumaa ji kat dafa nekk ci kanam wan ginnaaw sëriñ bi ah, mu gis ne kon loolu warta mën a nekk man tam warta mën a nekk ci la joxe ndigal ne jumaa ji nañ ko jëlee foofu yóbbu ko fi sëriñ bi nekk nga xam ni mu dëppoog ni ñu def ci rasulullah alayhi salaam nga xam ni bi mu fi jógee Madina ñu denc ko foofu ci néegu soxna Aïcha nañ ko nettalee nga xam ni jumaa ji dañ ko mujj def mu wër barab bi loolu sax xam naa am na benn débat foofu ci par rapport ak salafit yi ni ñu gisee ci ay li ñu tuddee la vénération des tombes waaye yu waaye xamuñu rek ci gàttal historiquement que ni jumaa ji tomb bi ak euh, mausolée bi bokkul woon kon Cheikh Moustapha moo joxe ñu jëlee jumaa ji ci jullikaay bi yóbbu ko ci euh, fii jumaa ji nekk nii loolu nag euh, di lu am solo lu mat a seetlu foofu mooy euh, tajdid boobu moo tax mooy yeesal googu ndax lu tax am na ñoo xam ne bu doon ñoom dañ liñ ciy déggee mooy ah ndigalu sëriñ bi de moo nekkoon fii kon duñ duñ ko duñ ko soppi ndax sëriñ bi nii la ko waxee woon waaye moom am na niveau ak it ñàkkul baatin kashfu bu ko yàlla may mu xam ne ndigal li li ci ëpp solo mooy ñu def jumaa ji nga xam sëñ Touba bu fa nekkoon mën naa mu soppi ndigal yi ne nañ ko def fële kon loolu am solo la ci di ñu xam ni kon contexte bi dañ ci tenir compte ci bu ñuy bu ñuy bu ñuy jëf ñu jàll ci Cheikh Cheikh Modou Fadel Cheikh Modou moo moom it yàlla nañu ko yàlla fayal moom it liggéey bu am solo ci yoonu murit nga xam ni eh, ginnaaw yàlla bu yoon wi àggee fii eh, ci ci ci ci ci njàmbaaram ak ci mbaaxam ak ci li ko yàlla defaloon eh, bi mu ñëwee moom it mu àggale liggéey Cheikh Moustapha ndax li ma ko waxoon sànq principe yi moom du soppeeku boo xoolee jikko yi Serigne Touba daan wootee yépp jàngale ko Cheikh Moustapha tegoon ci tànkam Serigne Fallou bi mu ñëwee ci la teg tànkam nga xam ne soppiwu ci dara kon loolu continuité la waaye ci méthode yi moom it bi mu ñëwee am na loo xam ne moo gën a dëppoog jamonoom ak li ko Serigne Touba xamal ñàkkul mu soppi loolu loolu it lu am solo la euh, bari na waaye ñu ñu jàpp ci rek benn boo xam ne am na solo mooy euh, màggal Touba màggal Touba loolu balaa ma ciy dugg euh, mooy li may wax yi rek ndax jikko yi ci la yeesal bi tàmbali moom it yàlla may ko jikko ju ju dëppoog li mu bëggoon a def jikko yi bari na ndax moom loo foo ko jël rek jikko rasulaa ñu fa gis waaye bokk ci bi ci gën a yéeme wala bokk ci bi ñu gën a téye mooy yaatu gi ak mbaax gi ak xajoo gi ak njaboote gi mu njaboote woon murid yi loolu nag di lu am solo ci contexte boobu ndax boo xoolee histoire murid yi histoire bu la dafa bëri ay crise bëri ay jafe-jafe ay euh, jamono Cheikh Moustapha bokkoon na ci li ko marqué mooy ginnaaw crise u sëñ bi jóge fii nga xam ni lu doy waar la ci la Cheikh Moussa ko doon wax naan euh, defe naa Bamba dem na àdduna jeex na ngir Bamba dem na nga xam ne crise bu doy waar la xaw a nuroog sa fi Cheikh Saliou soog a jóge euh, loolu yamu ci waaye ci la ci la crise des années 30 am nga xam ni crise bu doy waar la ci la deuxième guerre mondiale am ci la mbas ma ak yu bare bari daan xam ni murid yi jamono yi wax dëgg yàlla dund nañ ci ay jafe-jafe yu baree baree baree bare waaye bi Cheikh Mouhamed ñëwee mu mel ni tur wi sax da ko wuy mooy fadlul laa googu nga nee borom gi am dafa ñëw ëndaale mbég mi boo gisee sax ci li ñuy wax l'imagerie populaire mouride da ngay gis ni Cheikh Ahmadou Fall mooy représenté cette respiration la nga xam ne mouride yi jógee daanaka ci ci tartar yi te boo xoolee sax euh, dafa bari daal ay coïncidence yu doy waar ci histoire yoon yoo xam ni day mat a seetlu te da nga ciy gën a gëmee rek sëriñ bi mbiram suñu waroom a ko ko yor kon bi mu ñëwee kon mu ñëw kon an ak jikko joo jikko yi njaboote ñëpp euh, xoromu ak yu baree bari nga xam ni kon moom mooy symboliser fatlu laa googu euh, bu mu ñëwee kon moom mu dundal yoon wi ci anam yu bari waaye benn benn exemple rek laay joxe ci yeesal gi mu yeesal boo xam ne doy na yaakaar na muy màggal gi ndax euh, lool it ñu bari xamuñu ko euh, murit yi loolu dama ci profité ngir soññe faaw gone yi surtout gone yi murit ñu gën a gëstu gëstu histoire yoon wi gën a gëstu principe bu yoon wi ndax bari na ci gone yoo xam ni booy waxtaan ak ñoom tuuti rek nga xam ne dëgg-dëgg ni ñu waroon gëstoo sëriñ bi wala gëstoo ko yoon wi des na loolu nag day am jeex ci seen doxalin euh, ci yu bare bare ñu bari xamuñu ni kon màggal gi ñuy wax màggala Touba Euh, ci Cheikh du Fadl la tàmbalee ci waxin ndax Serigne Touba moo joxe woon ndigal li ni ñu koy nettali defe naa euh, bi wooyee suñu Balla Faal yi ak ya ca xewoon yëpp ak lam leen wax euh, nga xam ni 18 safar moom yàgg nañ koo def waaye Cheikh Moustapha ci ak moom gis gisinam ak li ko sëriñ bi xamal ci ak niteem màggal gi mu gënoon a mooy màggal gi ñu tuddee màggal Daaru Xudoos léegi muy 19 Muharram mooy te mu dëppoog bi sëriñ bi ñibbisee Touba jógee Njaareem ñibbisi Touba nga xam ni màggal googu boo demee ci ay mbindam ay sermon yi ma dafa da nga ko ciy gis muy leeral màggal gi lu ko waral lépp dugg ci nite go nite googu rek di fàttali nit ñi ne bakkan bu mos dund di nga mos dee da ko daan wax ak day leen bu bis di ñëwatee day leen jàng alxuraan day leen def salaatu ala nabi def nangam kon moom màggal googu la gënoon a féetale fesal waaye bi Cheikh Amadou Fadel ñëwee moom yamul rek ci ne ah Cheikh Moustapha de da daan màggal nii rek ñu yam foofu mooy li may wax sànq te te li solo ci tajdid mooy soppi wala yeesal du weddi ki la jiitu woon mooy dangay xool sa contexte li mu laaj ak li lay ci yàlla xamal nga defe ko te loolu du dàqoonte ki la fi jiitu woon du weddi euh, moom mu woote màggal Touba nga xam ni woo ci murid yi nga xam ne ñu tàmbali di fa daje at mu nekk di ko def loolu nag di lu am solo lu tax ma mu am solo mooy euh, màggal sëñ Touba sëñ Touba inventé wul màggal Touba sëñ Touba màggal la wax màggal sëñ Touba màggal la wax loo xam ma wax ko mooy boo leen delloo ci waxtaan yi fi Cheikh Abdou Lahad doon leeral yàlla ñu ko yàlla fayal wala sëriñ Saliou nga xam ni dañ daan nettali at mu nekk bu ñuy def appel màggal conditions yi ko sëñ bi wootee waaye boo leen seetloo li ñu ciy faral di wax ci tënk rek sëriñ bi suñu borom da ko daan teg ay nattu at mu nekk nattu yi di yokk mu dem ba at moo xam ni suñu boroom xamal ko ne ko nattu yi jeex na saa yu at mi ñëwatee damay damay dama lay fulaatal li ma la li ma li ma la joxoon bi bi amee ci la woo taalibe yi leen man de suñu borom li ma defal sa cant gi ma koy sant man kese doyatul damaa bëgg képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nga bu bis bi ñëwatee nga santale ma suñu borom defe naa noonu lañ ko nettalee euh, lan la ci teg cant gi nag maanaam ku koy def na ko def ci ginaar ba ci gileem waaye kenn déggul fenn fu sëriñ bi ne bu bu bis bi ñëwatee dee leen daje di ko def yaakaar naa loolu ñëwul ci benn riwaaye euh, kon Cheikh Modou Fadil moo woote ni nañ ko defee tuubaa loolu nag du lu am solo ndax lu tax ndax teg sam bokk la contexte sëriñ bi bokk la contexte Cheikh Moustapha ndax contexte am àggoon na ci murid yi tàmbalee bari tasaaroo ak yu baree bari kon dañoo soxla woon li ñuy wax defe naa ñoom si sa géographie tuddee lieu moment mooy ay barab yoo xam ni dañ fay daje espace surtout dans l' espace et dans le temps mu commencé di ko def ci Touba ndax Touba lu jiitu sëñ Fallou di di di taxaw Touba amul woon noonu benn importance ci ci ci dund yoon wi kon Cheikh Cheikh bi sëñ Touba tegee fondement Touba dafa mel ni moom moo teg mur yi kon muy woote murit ñuy daje Touba at mu nekk loolu nag may yoon wi lu baree bare dèjà ñi xamantewul woon di xamante ndax murit yi tàmbali nañoo bari di gise ba ba màggal gi jur lii mu jur nga xam ni sur beaucoup de dimensions économiques sociologiques culturelles bari na màggal gi léegi benn rôle mu joué ba ñu def ko sax jour férié léegi kon loolu di lu am solo loolu moo tax ba Touba màgg màggal Touba moo moo moo dundal Touba ak jumaa ji moo tax aussi mu may ko ba jumaa ji ñu mën di dajew foofu di indi ba jumaay Touba àgg kon loolu di lu am solo kon Cheikh Amadou Fadel yàlla na ko yàlla fayal moom moo def yeesal googu ci gàttal rek gën naa xóot loolu kon yeesal googu moom maye moo maye yoon wi àgg fi mu àgg kon moom mënul ñëwul rek ne sëñ Touba wootul woon màggal Touba dafa woote woon màggal kese kon na ko ku nekk defee fa nga ko daan defee waaye dafa dafa yeesal foofu euh, Cheikh Cheikh Modou Cheikh euh, Cheikh Abdoul Ahad euh, suñu jàmbaar ji topp ci moom it di ku yéeme yéeme yéeme yéeme ci kii moom li mën a wax ci moom dafa bari kuy gëstu ci yoon wi ngay murit a ngay ñàkk murit da lay frappé ci ni mu nekkee un point charnière ci ci ci trajectoire yoon wi nga xam ni baree baree bari moo ko liggéey moom it bi mu ñëwee am na lu jamonom laajoon loo xam ni dafa am jël responsabilité def ko ci yeesal googu ndax euh, te ñu mën cee lim rek benn boo xam ne yaakaar naa dina yomb ci murit ñu xam ko muy moom jikko ji ko yàlla joxoon mu dëppook jamono jooju muy dajaa am ful la ñeme dëgg am jamonoom da koo laajoon lu tax contexte am laajoon ko ndax it Cheikh Modou mbaax gi ak yaatu gi ak àggoon na ci murit yu bëri daanaka dëgg-dëgg nañu war a fonkee Touba ak yu bëree bëri xaw a des am ni li ma waxoon respiration la woon dañu daan dañu doon ci ci jafe-jafe ñu bëri xaw cee dem ba topp mbaax gi ak yaatu gi ba yu bëree bëri ñu si di ko def nga xam ne Touba eh, ni ko defe naa gars yi di waxee da ngay jaay ba ngoon nga nga nangam di dem jaajëfe galas ak yu bëree bëri kon mu mel daal yombaay geeg xéewal yi dem na ba murit yi xaw ci nuur maanaam bare bare ñu fàtte ko moom nag bi mu ñëwee nag mu mel dafa waroon recentrer loolu moo tax mu doxee ci noonu nga xam ni Euh, boo xoolee ni ñu organiser yoon wi ak ni mu recentrer la la ndigal ak yu bare bëri mun naa waxtu wi du ko maye moom moo ko moo ko gën a liggéeyaat li ci fees rek bokk na tere yi mu tere woon Touba nga xam ni mur yu jàppoon nañu loolu mënta nekk te mu daj ci lu nekk nag loolu dañ ko war a wax ndax ñoo jàpp ni mu njëkk ba ndigal ñëpp ko daan jëfe léegi la déedéet xalif yi njëkk yi li ñu daj daanaka xalif yi dajuñu ko nga xam ni ni mu ci nettali yu daw yaram bi mu ko taree ñu bëri di ko bind ay leetar di ko te ay murit a def murit yu bind xalifa Sëñ Touba wax lu ñaaw ak yu doy waaye mu yàlla may ko fulla boobu ak dogu gi ak ñeme dëgg gi ba kon ci wàllu jikko yooyu ci la ko yàlla defalee euh, li mu ko defal ma bañ cee guddal euh, bi sëñ Saliou ñëwee euh, sëñ sëñ Abdou Khadre moom it mu yeesal yeesal gi moom naka jekk da koo nekk da koo def ndax man ni ma ko ni ma ko xawal di misaalee xilaafaam ko mooy imaamaam rek imaamaam gi mu nekkoon daanaka moo nekkoon mission kon moom ci wàllu sunna kon dëgg-dëgg moom ci la ci la wane ni kon mooy sunnatoo xaraagoog sëñ Tuubaa woote ci la ko def ma ñu jàll ci Serigne Saliou moom it yàlla nañu ko yàlla fayal nga xam ne ñun ñëpp naa ko jamononte ak moom xam naa duñ ci guddal moom it dajee contexte boo xam ni dafa waroon a yeesal bokk na ci domaine bi nga xam ne gis naa ni am na solo mooy sur le plan politique noonu laa koy tuddee ndax boo jëlee ku mel ni Cheikh Ahmadou ak sëñ Abdou ci ñoom ni ñu gisee woon relation ñu ar ak homme politique yi moom laa tudd la vision corporatiste euh, de la politique ñoom dañoo jàpp dañoo war a jàppee jàppale nitu nguur yi ngir ñu jàppale diina ji wala yoon wi ci tënk rek bind naa ci téere jarul ma ci ñëwaat waaye ñoom kon loolu moo leen mayoon ñuy joxe ndigal naan nañ voteel Senghor wala nañ voteel Abdou Diouf loolu ñu gis loolu li mu jariñ yoon wi wala jariñ ko diine ji waaye sëñ Fallou contexte bi mu ñëw dafa mel ni sëñ Saliou moom laajatul ñuy sa ni ñu wax sa dirigisme laa ci wàllu politique ndax ni mu ko daan waxee bu ñu ko laajee lu tax yow doo joxe ndigal mu ne man kat damaa jaboote ñëpp ndax jamonoom àgg na Euh, configuration politique yeeg ak enjeu yi bokkatul ndax léegi daanaka euh, parti politique yëpp daanaka ñu bari ci ay murit la ñu bokk ci moom kon dafa mel ni rôle d' arbitre ak rôle de euh, ci la gën a ci lañ ko gën a gën a gis ka ka yeneen ngir bañ a xóotal rek kon moom yeesal na ci fànn boobu ak ak ak yu baree bare sëñ Mamadou Lamine Baara moom it bi mu ñëwee daanaka sëñ Fallou lu andiwaat rek man noonu laa ko gisee ndax mooy yaatu gi ak bëgg nit gi daanaka am sëñ Fallou rek moo ñëwaat ci ci ci jamonoom te mu am mérite bu am solo muy di sët bi njëkk a toog ci ci ci ci xilaafa gi te yàlla may ko ci diir bu gàtt bi mu fi toog mu liggéey fii lu am solo lu ñëpp teg bët ba sax li ñuy wax déjouer projet yi ñu nga xam ne jàppoon nañu bi fi doom bi sëñ Tuubaa jógee daanaka dara du du mënati taxaw kon loolu dama bañ a guddal ndax waxtu mi ngi mi ngi dem kon ci ginnaaw kon ci la sëñ Sidi Mokhtar ñëw kon sëñ Sidi Mokhtar bi mu ñëwee yàlla nañ ko suñu borom yàggal te may ko wér Euh, moom it mu taxaw taxawaay yu am solo xam naa li ñu ci mën a wax bari na euh, nga xam ni mag ñooñu ñu fi tuddu ñëpp ku ci nekk indi na daanaka jikko ya nga ya nga fi daan dundal te rawatina ci contexte bi ñu ne nga xam ne ñu bëri jàppoon nañ ni euh, li ñuy wax bu fi doomu Sëñ Tuubaa jógee li leer des petits fils mbir yi war a yam nanga mi yu bëree bëri mooy wax la les prédictions la fin du mouridisme yàlla def ko mu am ay jikko yu doy waar macha allah ak yoo xam ni yu jéggi dayoo la waaye ci jikko yooyu rek mënees na ci lim benn boo xam ni jàppoon nañ ni ci suñu analyse ba tey moo gën a dëppoog jamono ji te moom te mu mu jar nag ñun ñi nga xam ni ñooy tuddoo Serigne Touba ne dañoo daan ay taalibe sëñ Touba di jéem a roy jikko jikko jooju ci moom ndax jikko jooju dañoo jàpp ni ci li mën a gën a dundal yoon wi wala boog téye ko ci la bokk jikko jooju man jàpp naa ni mooy mooy ngor li naan ngor ngor ngor nag euh, ci ci tënk rek moom mooy rek sabrun jamilun bu ñuy wax ci alxuraan nga xam ni muñ la waaye muñ goo xam ne day rafet day rafet nga xam ni nattu yi lu mu bari bari bari nattu nag bu ñu ko wax ñaar la nattu ci jamonoy tartar ak napp nattu ci jamonoy xéewal nattu yi lu ñu lu ñu bari bari bari yow la la tax a jóg mu yàlla suñu borom ak ngërëmal sëñ Tuubaa oo sa tànk mel ni Cheikh Sidi Mokhtar jikko yi ñu a waxal bari na waaye boobu man man ci sama wàllu bopp fii ma gën a yéem la bokk loolu nag mu mel ni rek da ko doon ne ci li sëriñ ji li doon wax sànq muy way juróom maamam mu tedd wa soxna Aminata Lo kon dafa mel ni ngor googu nga xam ne moo ko njëkk moo ko njëkk jëfe ci yoonu murit ngor googu Euh, ci la ko ci la ko doon ne ngor lu tax mu am solo euh, xam naa foofu laay jeexale mooy euh, contexte bi ñu nekk nii da koo laaj ndax am na borom xam-xam bu baax ci yoon wi muy sëñ Afe Ñang yàlla ko suñu borom yàggal mës naa koo laaj ci ñuy waxtaan ci ci yoonu murit ma ne ko yow lan nga gis ni bu ñuy wax menace ci yoon wi loolu moo moo mën a gën a bàyyi xel loo xam ne daal buñ ko bàyyiwul xel mën naa yàq lu bari ci li nga xam ne ñun moom lañ fi war liggéey sëñ Touba euh, moo wax ma ci ñett yu am solo euh, daf ne ma moom li ma gis ni ay menaces la ci yoon wi bokk na ci benn bi mooy bëgg àdduna bëgg àdduna nee na bëgg àdduna murid yi dañ ko war a gën a bàyyi xel ndax euh, li leen Serigne Touba liggéey bari na bari goo xam ne xéewal yi bari na boo xam bu ñu moytu rek dañuy fàtte li taxoon jóg xéewal yooyu yem ci xéewal yi loolu am solo la kon menace bi ñu war a gën a bàyyi xel mooy bëgg àdduna te dafa mel yu bëri sax ñuy jàmbat ci yoon wi léeg-léeg boo demee ci ci dëgg-dëgg cosaan li bëgg àdduna la bëgg àdduna mooy danger bi njëkk te daanaka ni ko sëñ bi waxee raasu kulli sharrin maanaam bépp bépp xeeti ñaawteef rek ci bëgg àdduna la tàmbalee euh, ma ne ko bu ci topp mu ne ma beneen bi ci topp mooy koo xam ni dafa war a doon référence te xamul ni moom référence la koo xam ni dafa waroon a doon modèle te xamul ni modèle la da ngay gis ñoo xam ne ci yoon wi dañoo waroon nekk ñoo xam ne dañ leen di roy waaye ñoom xamuñu ni sax loolu gën a garaaw du du doxali waaye ñoom xamuñu ni sax ñoom ñu ñuy roy lañ ba seen comportement sax du mën a dëppoog lool man sama dolli ci dara xamuñu ni sax dañ leen war a roy waaye sax ñoom dañuy wëlbati ko sax di roy koo ne moo leen waroon roy loolaa ci dolli masalan da ngay gis koo xam ni dafa bokk ci sëriñ bi wala sax bokk ci seexu sëriñ bi waroon a jàpp ni moom ñi moom moo waroon doxalin doxalin boo xam ne ko war a roy waaye moom jàpp na ni milliardaire u sëñ Tuubaa yi moom moom la moom la bëgg a doon léegi moom jàpp na li ko sëriñ bi defal milliardaire u sëñ Tuubaa jàpp na ni politicien bi li mu am wala ministre bi wala wala président de la république kooku la kooku te ma jàpp ni ñun li ñu am euh, président amu ko waxoon naa ko kenn ku jege président mu may wax yu mel noonu ma ne ko man damaa jàpp li ma am seen président amu ko ndax moom de balaa muy doon président dund na lu mat 50 ans soo ko doon te mën naa am fii ak 10 ans président lañ koy wax dama ne damaa rek ñu fal ma te defuma dara lu ñu fal ma kon loolu ma fal te yaakaar naa du dem bañ naan monsieur l'ancien surtout sëñ Touba kon li ma may loolu bu ma ko bàyyi di topp koo xam ni li mu am mën na koo ñàkkoon dafa mel ni xaw ma sama bopp kon waaw kon deuxième danger bi mooy waroon nekk référence du doon référence ñetteelu danger bi mooy euh, woote yi yu bari yi yoo xam ni day jóg nuuru Serigne Touba te du Serigne Touba xam ni bari na léegi nga gis ñoo xam ni dañuy woote woo di di yëngu waaye boo xoolee ba ci biir maanaam dara Serigne bi nekku ci xam naa loolu nag waxtaan wi lu may ñu ñu sori ci léegi nag ci contexte boobu kon li ci mën a dimbali murid yi man maa jàpp ne mooy ngor googu sëñ Sidi Moxtaar nekk ndax ngor moo lay may lu xéewal yi bari bari bari bari yow li la tax a jóg man dara jarul la dara jarul la nga jaay sa ngor dafa mel ni loolu nag eh, buñ ko xamee mooy mën a saafara li ñuy li ñuy waxtaane ci yoon yi ndax bari na ñu fiy jàmbat yoo xam ni eh, ay ay ay ay di ay nit di la jaral yu baree bari yoo xam ne xam xam sa bopp nga xam ne sëriñ bi moom yàlla ko xamoon histoire am sëñ Seydi Muxtaar fi mu jaar xam ne histoire yu méttee métti la waaye yàlla da koo dimbali mës a nekk ci li mu nekk muy jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa ba su ko wàcc kon loolu ñun ñi nga xam ne ñooy wootewoo sëriñ bi di ay ndaw war nañoo gën a xool ci doxalin woo ndax doxalin moom mooy tax ba li ñu am ci sëñ Tuubaa ko jaay mooy tax ba murid tamit dara du fees seen bët lu sëriñ Tuubaa kon yaakaar naa ne loolu am solo la yemul nag ci yoon wi ngor googu damaa jàpp ni li ñuy jàmbat ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp moo ko mën a saafara masalan bu ñu jëlee même ci wàllu politique politique nga xam ni euh, mënuñoo wax réew mi wala comportement waxuñu politique bu ñu faxe bu ñu amoon maanaam classe politique boo xam ni dañuy respecter valeur yooyu muy valeur éthique ndax ngor mooy valeur éthique rek nga xam ni ñoom dañuy nekk ay nit ñoo xam ni réew mi da leen di gënal seen bopp nga xam ni li ñu leen jox privilégié fi ñu leen teg ñoom ngor seen ngor du leen may ñu ñu ñu jëfandikoo ko ngir leneen kon yaakaar naa bu amoon kon réew dina saafaraw dina tax tam kilifa diine yi ñoom it ñu xam ni li ñu leen jox du ay privilège waaye responsabilité la ndax bu la nit ñi toppee ngir yàlla di la jox seen alal wala teg la fenn fi nga bokk ci élite yi loolu du loo xam ne da koy jël di ko puu ko réew wala di ko di di ko kii waaye sa ngor ngor mooy nga jëlaat loolu ñoo ñooñu la jiital lépp loo xam ne waruñu la cee gis rek nga góorgul ba doo ci nekk ndax daana gën a metti kilifa boo xam ni maanaam xalaatul njabootam nga xam ni day fàtte li ko booleeg njaboot bi kon loolu defe naa moo koy moo koy mën a saafara Euh, ndaw ñi aussi mel ni ñu war a mel ndax euh, coow li lu mu bari bari bari njàng mi mën naa bari université yi bari waaye nit ñi bu ñu amul ay war valeuru delluwaay yoo xam ne seen deret moo koy bañ seen seen jëmm ndax nit war na àgg foo xam ni bu bëggee def safaan sax maanaam deretam du ko ko may lu fekk amuñu façon nit ñooñu rek euh, traque des biens mal acquis yu baree bari du du jeex te réew mi du tege ci yoon kon xam naa ma ma bañ a guddal li ma bëggoon wax weesu na foofu kon xam naa ñuy ñuy sant bu baax jotaay bi eh, bu ñu wax bi bu fekkee ni am na lu ci dëng wala loo xam ni eh, gënalu suñu borom ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax di di sant di ñaan suñu borom mu may ñu ñu mën koo def ay ay at yu baree baree bari eh, ñun ñëpp liñ fi li leen fi indi suñu borom yombadal leen ko ñu am ñun ñëpp ngërëmal sëñ Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.